mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dala ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Thiaw Abdoulaye Thiaw nekk technicien supérieur en anesthésie réanimation waaye tamit nekk secrétaire général bu syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal Abdoulaye Thiaw ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu sant la gërëm la ngir nangu bi ngeen nangu wuyu ci suñu invitation bi de. Euh, merci beaucoup waa mi FM. Mhm. man aussi maa ngi leen di jaajëfal bu baax euh, di leen remercier donc di wax ne je suis honoré euh, le fait que ngeen jël ma tey comme invité mhm. donc pour que ma animer seen émission bi. Mhm. donc euh, ci fi may tàmbalee rek xam naa damay def euh, présentation personnelle donc man maa ngi tudd Abdoulaye Thiaw euh, nekk technicien supérieur en anesthésie réanimation ñu formé ma école bu ñuy wax école nationale de développement sanitaire social muy ENDSS mm. ma bokk ci troisième promotion bi génn depuis 2001 bi ma génnee ba léegi donc maa ngi liggéey hôpital principal donc ren laay def def sama vingt unième année d'ancienneté mhm. euh, ci service d'anesthésie bi bu hôpital principal mhm. euh, donc euh, anesthésie nag dafa nekk benn domaine boo xamante ne domaine bu pointu la domaine bu pointu la ñin ñi nga xam ne ñoo fay nekk di liggéey dañuy liggéey en collaboration ak chef de service yi mun ñu nekk ay médecin anesthésiste réanimateur ñuy jiite service bi ñun ñu bokk ci service presse donc euh, nekk sous seen euh, euh, couverture di liggéey pour gérer lépp loo xamante ne dafa jëm ci maladies yi ñu war a opérer opération yi nag day nekk ay opération yoo xamante ne mën nañ leen programmer nekk ay opération yoo xamante ne aussi mën na nekk ci contexte urgence donc bépp opération boo xamante ni ci xeet yooyu la donc ñun ñi nekk ci service d'anesthésie yi donc ñoo ci liggéey ak suñuy chef muy médecin anesthésiste yi pour jël en charge euh, ci anam bu mucc ayib euh, ñëpp ñi nga xamante ne nekk nañ ci situation euh, yu ñu leen war a opérer Euh, euh, mu mel ni foofu leer na docteur dañuy xuus rek euh, ci li nga xamante ne moom mooy sa spécialité wax nga ko technicien supérieur nga en anesthésie réanimation tey ñu bëggoon xam rek jëm ci wàllum formation ci ban niveau d'étude ngay spécialisé ba ñu la jàppee comme un technicien supérieur. waaw donc dans le cadre de la santé. Mm-hmm. Euh, pour nga def formation de spécialisation en anesthésie réanimation il faut faut nga def euh, formation infirmier d'état après nga def une am une ancienneté de quatre ans euh, ñun nag jamono yi nga xamante ne la ñuy recruter euh, muy année quatre-vingt-dix-huit dafa yemoo woon ak période boo xamante ne Sénégal dañu soxla woon ay spécialistes dans le domaine de la santé taxoon jamono boobu école nationale de développement sanitaire social ubbiloon concours bi euh, aux étudiants étudiants yi nga xamante ne dañ nekk dans les domaines scientifiques euh, man ci porte boobu laa jaaroon pour dugg école nationale développement sanitaire sociale et bi ñu recruter après un concours national euh, dañ ñu defloo benn année préparatoire année boo xamante ne daf ñuy former ci lépp li nga xamante ne moom mooy soins infirmiers de base donc bu ñu defee formation boobu ba pare ñu defalaat ñu beneen concours boo xamante ne moom moo ñu doon permettre effectivement ñu épouser les différentes spécialités donc formation bi euh, année préparatoire la boo xam ne donc à l'issue Euh, euh, ñu def concours bu ñu defee concours bi ñu def sélectionné par ordre de mérite et en fonction ordre de mérite boobu noonu ñu dispatché euh, élèves yi ci section yi nga xamante ne donc moom mooy anesthésie réanimation biologie kinésie ophtalmo odontostomato odontostomato kinésie donc yooyu yëpp ay section spécialisée la yoo xam ne Sénégal dañ ci néew la woon ay nit ñu ubbi woon concours bi jamono yooyu donc ñu duggoon ci donc formation bi suñ ko bëggee tënk ci ay at ñetti at la benn at boo xamante ne année préparatoire la ak ñaari at yoo xamante ne donc dañ koy def dans le cadre de la spécialisation euh, mais li may fi may insister rek mu nekk loo xamante ne dafa dafa am solo ci formation bi nga xamante ne ñun si lañ jaar mooy dafa nekk formation boo xam ne Euh, gars yi dañ mettoon accent bi bu baax a baax a baax a baax euh, sur le terrain parce que ñun bi ñuy euh, bi ñuy formé ñaari at yi ñu formé yépp hôpital Dantec la ñu nekkoon foofu lañ doon defee suñu formation ci service de réanimation bi donc chaque jour que jëfee bu ñu jógee ñu ngi ci bloc yi bu ñu defee suñu bloc ba pare ñu dem defi suñu cours yi donc mu nekk formation boo xam ne c'était une formation bu très intense rigoureuse. Euh, très rigoureuse même mm-hmm. parce que anesthésie moom mooy domaine bi nga xamante ne moo gën a sensible moo gën a sensible si spécialité yooyu ñu créé yépp parce que da ngay liggéey euh, ci ay nit da ngay liggéey euh, ci Euh, condition yoo xamante ne yow yaa war a sauver nit ki wala yow boo intervenirul bu baax nit ki kat mën na fa jaare donc euh, musiba euh, dal ko mm-hmm. donc mu nekk lu sensible ba taxoon formation bu rigoureuse lañ nekkoon deux ans durant nga xam ne chaque jour que jëfe yaa ngi ci cours yi yaa ngi ci mm-hmm. terrain bi yaa ngi ci stage yi mm-hmm. donc formation boobu nag tax na Sénégal ci jamono yooyu ñu am ay paramédicaux yu bari yoo xamante ne donc jot nañ leen former ñu am ay compétences yu rëy ba tey jii bu ñuy wër Sénégal defe naa ne bloc yi ci ëpp ci Sénégal ñoom ñoo fa ne surtout zone yi nga xam ne Euh, euh, état bi amagul assez de médecins pour yóbbu leen fa ñoom ñoo nekk di assurer liggéey bi yépp mm-hmm. mais ñu ngi koy assurer au la main di ci am ay résultats yoo xamante ne ay résultats yu mucc ayib la. wax nga ko ci sa biir wax euh, insister nga bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di formation bi mais bu weesoo formation bi mu mel ni euh, école boobu nga tudd bu muy ENDSSS euh, c'est ça sélection bi maanaam lim biñ ci doon jël dafa sélectif woon. waaw lim biñ ci doon jël dafa sélectif bu baax a baax a baax parce que boo xoolee section bu mel ni ñun section bi ñu nekkoon ñun huit personnes la ñu woon huit personnes lañ lañ ci jëloon euh, huit personnes yooyu noonu pour que ñu mën leen encadrer correctement man leen former euh, et aussi euh, avant nga fay yegg il fallait nga bokk ci ñi nga xamante ñooy génn premier de leur ah, classe waaw daanaka major ñi nga xamante ne ñëpp ñoo génnoon major man ci année yi may def donc ñoom ñoom lañ doon yóbbu euh, ci formation boobu nga xamante ne moom lañ jagleeloon élèves yi pour anesthésie euh, réanimation donc effectivement c'était une euh, sélection bu sélective la woon mm. et aussi formation bi aussi nekkoon na formation boo xam ne formation bu intense la mm. pour que nit ñi bu ñu génnee fépp fu ñu mën a dem ñu mën a autonome ñu mën a liggéey liggéey bu mucc ayib. Euh, yaa ngi koy wax euh, gis sa biir wax docteur Thiaw tu as mis l'accent sur la formation daanaka sax insister nga ko yow nga xamante ne da ngay yëngatu ci wàllu woowu euh, tey boo ñu doon defal rek benn petite comparaison si comparaison y en bien sûr entre jamono bi ngeen di subir formation ak jamono ji di tey yaakaar nga ne c'est identique. waaw léegi jamono bi moom euh, y a problème ah y a problème ndaxte problème bi posé wu mooy ENDSS depuis ñaar ba ñetti at mu ngi nii donc euh, dafa tëj formé wul euh, et tëj boobu mu tëj dafa indi ay gàllankoor yu rëy rëy rëy rëy ci Euh, disponibilité ci productivité ay personnel yoo xamante ne dañuy nekk dans les domaines euh, spécialisés de la santé muy anesthésie mhm. comme muy yeneen yeneen fànn yi mhm. naam naam ñu ngi jéem a euh, organiser yeneen formation donc pour le secteur pour permettre Sénégal ñu mën a disposer ay spécialités mais ba léegi ba léegi ba léegi formation yooyu ñuy def mënul méngoo ak ENDSS formation bi nga xamante ne donc moom la doon joxe ndax euh, euh, environnement yi bokkul euh, disponibilité lieu de stage yi bokkul rigueur bi bokkul pratique bi bokkul donc te yooyu yëpp pour surtout surtout je dis anesthésie réanimation dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop trop trop parce que il faut être tout le temps au contact des malades mm. tout le temps au contact des malades euh, pour que yow euh, sa li nga jàng nga mën ko mettre en pratique maitriser ko pour que euh, mu am njariñ donc loolu bu ci amul rek donc day poser problème te jamono jiñ toll ci foofu lañ toll ENDSS donc euh, formeetul euh, am na une à Saint-Louis benn formation boo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy dérouler mais ba léegi des na des na bu baax. docteur justement par rapport à ça ndax formation bi bu xawee am ay jafe-jafe ndax du reper ci li nga xamante ne moom façon bi ñu a liggéey yi waaw day day am répercussion yu bëree bëri bëri bari bëri surtout période yi ñu toll nii nga xam ne euh, politique gu euh, président de la république nekk na ci defar ay hôpitaux yoo xamante ne minimum ay hôpitaux de niveau trois lañ mhm. ak hôpitaux de niveau quatre euh, donc hôpitaux yooyu c'est des hôpitaux yoo xam ne ils sont hyper spécialisés mhm. hyper spécialisés donc dañu dinañ soxla benn main d'œuvre boo xamante ne donc main d'œuvre bu spécialisé lay done te Sénégal déjà fi ñu toll nii rek fi ñu toll nii section yu bari dañ ci am un déficit mm-hmm. anesthésie bi ma nekk nii donc Sénégal dañ ci am ay déficit ba jamono bu yàggul rek ñu ngi doon waxtaan euh, ak euh, autorités yi euh, au du ministère de la santé fexe ba yenn personnel yoo xam ne dañ dem retraite bu yàggul te seen kattan may leen euh, ñuy exercer ba léegi ñu mën leen woowaat contactualiser leen ci ay centre yoo xamante ne ñu ngi fii euh, surtout ci région de Dakar euh, ak un peu vers la périphérie ñu ubbi centre yi def ay bloc pour xeex contre la mortalité maternelle ak infantile mais centre yooyu lii seen gàllankoor mooy amuñu ay anesthésistes yoo xamante ne mën nañ leen fa teg mhm. donc pour solution euh, transitoire dem nañ ci ba comme ni mu leen ko waxee jël ay nit ñoo xamante ne ils étaient déjà à la retraite euh, ñu intégré waat leen ci système bi mën leen utal place ñoom euh, ñu ñuy couvrir pour le moment déficit boobu mhm. Euh, justement par rapport ak euh, déficit bi yow docteur Thiaw daanaka wax nga ko sax euh, tey ñu bëggoon xam rek quand on parle de technicien supérieur en anesthésie réanimation boo ñu doon wax lim bi nga xamante ne OMS da koy farataal di def maanaam ratio bi tey déficit bi boo ko doon jàng ndax dafa yemamaay wala gab bi dafa bari. gab bi gab bi bëri na gab bi bëri na parce que boo xoolee tey boo demee si ci Dakar sax tane nañ parce que Dakar euh, euh, centre hospitalier boo dem euh, di nga fa fekk au minimum cinq ba six ba peut-être une dizaine mm. de techniciens yoo xam ne ñu ngi liggéey sous le couvert donc de médecins anesthésistes réanimateurs mais boo génnee Dakar la problème bi di gën a posé wu parce que boo génnee Dakar tey nga dem Thiès nga xool région de Thiès ni mu tollu nga xool nga gis ne peut-être y a à peu dix wala mois de dix personnes yoo xamante ne ñoo fa nekk euh, war a couvrir toutes les demandes yi di am ci région boobu yeneen boo ci région bu ci gën a sori nag gën a am ay problème euh, parce que boo génnee tey dem ba ay côté Bakel dem ba ay euh, Tamba dem ba donc nim limu technicien en anesthésie yi dafa gën a néewati mhm. dafa gën a néewati donc loolu aussi vraiment appel bu ñuy lancé la dafay posé la nécessité la nécessité euh, urgente que ENDSS ñu régler problème mu statut yi définitivement ñu féetale ko fi nga xamante ne wow foofu la war a féete entre ministère de la santé ak enseignement supérieur euh, ba pare ñu tàmbali ca lu mu gën a gaawee te lu mu gën a gaawee ñu tàmbaliwaat formation bi pour que secteur bi ñu mën ko euh, euh, approvisionner en personnel yu doy hôpitaux yu bees yi ubbi yépp ñu mën leen donc affecté ay personnel yoo xam ne dinañ leen permettre ñu fonctionner parce que euh, nga defar hôpital bu bees defa équipement yi nga xam ne moo war yëpp euh, ba pare amoo personnel je pense que loolu aussi donc amul njariñ mm-hmm. donc euh, pour dire rek que donc am na solo am na solo trop pour que gap boobu ngay wax mu nekk un gap très important que ñu jëm ko résorber résorber par quel moyen mooy formation wu euh, personnel spécialisé yi parce que boo xoolee yeneen domaines yi sax souvent amul problème ay infirmier ay sage-femme souvent euh, état école privée yi ñu ngi ciy former lu bari mm-hmm. mais section spécialisée moom donc daanaka amul à part Saint-Louis amul benn euh, école boo xamante ne mu ngi leen di former pour mettre leen à disposition décision donc de de l'État ou bien des établissements publics de santé. wax nga ko njiitu réew mi nekk na def ay innovation tabax na ay hôpital yu mucc ay jagleel ko yenn région yi wax nga ko euh, il ne suffit pas rek ñu tabax ay hôpitaux de niveau trois ak dernière infrastructure yi mais foog mu am mesure d'accompagnement mesure d'accompagnement bi nag biñ ko waxee mooy mu ànd ak euh, ressources humaines qualifiées ak bu am expérience tey docteur dañuy seetlu ko ne wax nga ci sa biir wax Dakar mën na bañ am déficitu technicien supérieur en anesthésie réanimation mais ce n'est pas le cas peut-être boo jëlee Diourbel wala Tambacounda mais yenn saa yi aussi dañuy wax ne le personnel médical euh, dañuy bañ rejoindre li nga xamante ne moom moo di seen poste yi par rapport ak yenn affectation foofu aussi tamit boo ñu ko doon defal benn euh, petite benn jàngat bu ndaw lan nga ñu ci mën a wax Euh, waaw donc euh, di wax rek ne même même Dakar li mu li mu bëri bëri euh, li mu bëri bëri ay techniciens des na ba léegi parce que am na ñoo xamante ne tey ba léegi nii da ngay gis tey si benn kuréel boo xam ne créer nañ ko muy association des techniciens supérieurs en anesthésie réanimation mhm. da ngay gis souvent nga gis ay centres yu nekk fii Dakar di wax ne soxla nañ ay techniciens donc mhm. pour dire que même Dakar malgré que bëri ay techniciens yu fi présent mais ba léegi déficit bi am na euh, par rapport ak affectation yi loolu moom c'est vrai euh, loolu loolu dëgg la euh, souvent mën nañ jël ay nit affecté leen et que du ñu bëgg a rejoindre seen poste wala ñu rejoindre mm-hmm. loolu aussi man damay wax ne état bi dafa war a réfléchir ci ban politique ban politique la war a mettre en œuvre pour que les personnels yi nga xam ne dañ leen di recruter dans le cadre de la santé ñu leen di yóbbu ci dëkk yu soree sore yi ñu xool une politique de motivation mm-hmm. motivation boo xamante ne nit ki tey boo ko jëlee Dakar yóbbu ko saint wala yóbbu ko Tamba wala yóbbu ko maatam wala yóbbu ko feneen euh, mu mën a am lenn loo xamante ne kii nekk Dakar amu ko en termes de de d'émolument en termes de de de de de de situation ba nga xamante ne nit ki tey boo koy jëlee Dakar di koy yóbbu Tamba wala Matam wala Ziguinchor wala feneen du du ko jàppee comme loo xamante ne sanction la wala lu diis la day jàpp ne foofu bu fa demee il lora une motivation supplémentaire que sa soit des primes d'éloignement que ça soit des primes de service banga nga xamante ne bu fa demee dina ko wóor ne dina dem toog liggéey en toute quiétude te liñ koy jox comme salaire comme ay prime dina régler ay problème mais su fekkee loolu amul da ngay dem yóbbu la fu sori nga war fa dem toog liggéey nga gis ne condition yi ngay liggéey déjà baaxul nga gis ne fay bi ñu lay fay aussi dara baaxu si mais tu vas te dire mais pourquoi may may dem di toog fii alors que su ma ñëwoon toog Dakar euh, su ma liggéeyee ba pare dinaa mën def lii wala dinaa mën def lale donc vraiment loolu moom maa ngi ci ñaan nguur gi bu baax a baax a baax à travers le ministère de la santé pour que ñu xalaat ci xalaat ci trouver un système de motivation ñin ñi nga xamante ne ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci dëkk yu sori yi sax ma jégalu ma àll bi mm-hmm. ñu ngi ci dëkk yu sori yi euh, nekk fa di liggéey nekk fa ñoom kese di liggéey suba ngoon guddi ak bëccëg mm-hmm. bu ñu jógee ci motivation yi nga xam ne war nañ leen ko defal ñu trouver aussi benn système boo xamante ne dañuy wax def ne nit ku def quatre ans wala cinq ans ci benn zone de obligatoirement obligatoirement ci disposition yi dañ lay jëlee zone boobu indi la ci benn zone boo xam ne jàpp nañ ne moo gën a cadre bi moo gën a woyof mhm. conditions yi moo gën a amélioré ainsi ba nga xamante ne euh, nit ki buñ ko affecté aussi fou sori moom dina ne dina xam ne on a mis en place benn système système boo xam ne euh, bu fa defee deux ans wala trois ans wala quatre ans mhm. wóor na ko ne dina jógee foofu dem feneen foo xamante ne peut-être dina gën a woyof si moom wala dina gën a jege ainsi de suite mhm. loolu aussi day nekk autant de mesures mhm. euh, yuy permettre tey personnel yi bu ñu génnee ñu affecté leen donc dina leer seen bopp ne ils vont faire un cursus et parmi le cursus qu'ils vont faire même bu ñu commencé fu metti dinañ ko dinañ mujjee foo xamante ne dina woyof si ñoom dara bokk ci seen formation. waaw euh, au fait même même buñ ko boolewul si formation bi sax. Euh, management la mhm. xam nga tey ministère de la santé moom moo yor nan lay utiliser ay personnel am euh, par rapport ak la demande mhm. parce que tey ñoom ils ont mis en place une politique santé ils ont mis en place benn carte sanitaire boo xamante ne dafay wane euh, Sénégal fépp foo xamante ne war nañ fa def poste de santé wala centre de santé wala ay hôpitaux ainsi de suite hôpitaux yooyu ñoom ñoo leen war a pourvoir en personnel euh, ci seen système de management nag la ñu war a dolli caractère yooyu ma lay wax mooy yokk motivation wu ñi nekk fu sori ba pare dressé leen benn plan bo xamante ne boo nekkee fu sori euh, dalay leer ne donc di nga au bout de quelques années di nga jóge foofu ñëw fii boo defaate foofu tant d'années di nga jóge foofu ñëw fii mm-hmm. ba ne bu boobaa day leer ci bopp ñëpp mm-hmm. après du am euh, kumba am ndey ak kumba amul ndey mm-hmm. genre kii dañ koy yóbbu fii parce que voilà xaritu diw la euh, kële dañ koy yóbbu fongale mi wala dañ koy yóbbu maatam wala Fuuta wala feneen parce que amul amul bàjjeen ci système bi quoi donc loolu bu boobaa dina gën a mettre l'aise ñi nga xam ne système de santé non seulement dina leen mettre à l'aise mais certainement dina wàññi li nga xamante ne moom mooy seen yu liggéey je m'explique boo jëlee benn hôpital bu mag nga jël ci benn am ci benn wala ñaar euh, technicien supérieur en anesthésie réanimation je suppose que euh, quantum horaire bu muy liggéey bu bëree rek trop ba nga xamante ne mënul noppaleku dina am euh, foo xamante ne dina fa faaye waxuma sax échec yi muy def mais mentalement ak moralement bu amulee temps bu suffisant pour se reposer wu day wu ci moom production waaw loolu moom dëgg la ah xam nga euh, comme ni ñuy wax rek liggéey euh, liggéey moom su fekkee ne liggéey bi ngay liggéey euh, dafa dem ba charge bi weesu yow say say capacité di nga dem ba benn instant da ngay def loo xamante ne donc du du méngoo ak niñ ko niñ ko diglee surtout anesthésie anesthésie dañ lay wax ne la donc boo koy def am na nombre d'heures yoo xamante ne ci journée bi waroo ko passé donc boo demee ba dépassé ko rek sa réflexe yi nga war a am euh, devant une urgence ak aptitude yi nga war a am devant une urgence bu boobaa dafay dafay dafay dafay wàññ dafay wàññeeku te Euh, sauver malade sauver malade des fois ci ay fraction de seconde la wala des fois maximum si trois minutes la mm-hmm. donc boo demee ba sa say capacité physique ak mentale dem ba sonn mënutuloo mënutuloo am tenir wala mënutuloo am productivité bi nga xamante ne moom moo war pour nga def euh, liggéey bu bu efficient mm-hmm. donc euh, wax dëgg wax nga dëgg loolu dafa am solo trop te Euh, vraiment ñi nekk ci fu sori Dakar loolu la ñuy dund mhm. ñoom ñoo nekk seen centre yi guddi ak bëccëg dañuy liggéey bëccëg ba ba jeexal guddi bépp urgence bu am ñu waat leen ñu ñëwaat e loolu effectivement sa expose euh, les personnels ça expose les patients euh, et personnels yi da leen di exposer ci burn-out day exposer patients yi aussi euh, ñu nekk devant quelqu'un qui est fatigué koo xamante ne donc euh, réflexe am yi day wàññeeku euh, ni mu leen waroon taxawoo dëgg du leen ko mën a taxawoo donc loolu aussi euh, comme vous l'avez dit c'est nekk na lenn loo xamante ne war na tax tax rek donc ñu gën a euh, yokkaat personnel bi ñu gën a formé waat ay nit mettre leen ci système bi pour que euh, change de travail bi mu nekk change de travail boo xamante ne c'est une charge de travail normale. Mm-hmm. docteur euh, ngir tëj ci parenthèse bi rek ñu bëggoon xam ci ban moment la anesthésie réanimateur bi di di di intervenir. waaw donc euh, euh, ñun euh, technicien en anesthésie réanimation donc euh, dañuy liggéey comme ni ma ko waxee sànq sous le couvert donc d'un médecin anesthésiste réanimateur boo xam ne moom mooy seet malade bi malade bi bu ñëwee da koy defal une consultation donc bu ko defalee une consultation su fekkee programme réglé la bu ñëwee ba la ñu saytuwaat dossier malade bi xool ba xam ndax lépp sotti na bu boobaa ñu soog a ñëw nag ñun ñooy jël malade bi donc yóbbu ko salle installé et tout donc médecin bi ñëw ñu ànd ak moom euh, liggéey buñ ko waree defal anesthésie boo xamante ne du anesthésie totale ñu defal ko ko su fekkee ne anesthésie totale lañ ko war a defal donc ñu ànd a deux ou bien à trois donc ñu nelawal ko defal ko machine def li ci war yëpp ñun ñooy assurer surveillance bi aussi ba intervention bi jeex ñu yee ko ñu yóbbu ko ci salle de bi gars yi surveiller ko donc loolu euh, c'est surtout à Dakar mm-hmm. mais suñu génnee Dakar mm-hmm. liggéey bi nga xamante ne médecin bi moom lay liggéey mm-hmm. euh, technicien supérieur bi moo koy def boole ak moom li nga xamante ne donc moom lay moom mooy euh, son travail de tous les jours donc euh, moom moo koy moom moo koy gis euh, en en consultation bu ñëwee ba ci veille bi wala matine bi moom mooy xoolaat dossier bi xool def benn contre visite xool ba xam ndax lépp jaar na yoon bu ñu paree ci loolu aussi moom moo koy nelawal moo koy yee surveillance post post opératoire bi moom moo koy dénk ay infirmiers yoo xam ne euh, da leen di former quand même ci ay euh, notion de base euh, en réanimation mm. et bu ñu paree aussi moom mooy gérer suivi bi mm. donc gis nga ne kooku li muy yanu ci charge de travail ak mm. responsabilité dafa bëri te leneen lu may soulever foofu muy loo xamante ne Euh, ama ama am solo la c'est que euh, les techniciens en anesthésie et les paramédicaux en général mm-hmm. dañu leen di liggéeyloo ay liggéey yoo xamante ne euh, daf leen di exposé Euh, donc parce que tey euh, ñi nga xamante ne ñu ngi ci àll bi di liggéey liggéey yoo xamante ne daanaka nekkul seeni responsabilité mm-hmm. dafa am benn ministériel boo xamante ne dafa dafa dafa citer les actes yi nga xam ne paramédicaux yi ñoom ñoo ko war a euh, ñoo ko war a pratiquer mm-hmm. euh, te ci actes yooyu mm-hmm. bi ñu defee arrêté boobu ba léegi amul benn mise à jour boo xamante ne ah. donc def nañ ko euh, ci arrêté boobu mm, arrêté bu tudd nomenclature des actes professionnels mm-hmm. genre ku ci ci ci domaine bi nga ne ñu ne la ah kat lii di nga def lii di nga def di nga def lii keneen ñu ne ko infirmier bi ñu ne ko di def lii sage-femme ñu ne ko di nga def lii technicien supérieur ñu ne ko di nga def lii euh, liñ doon ñaan depuis un moment defaguñ ko mooy ñi nga xamante ne nekk nañ ci zone yoo xamante ne c'est des zones euh, yu amul assez de praticien ñu corriger loi bi couvrir leen couvrir acte yépp yi nga xamante ne ñooñu ñu ngi koy poser te mu doon ay euh, actes médicaux mu am benn alinéa buy wax ne dans les zones yi nga xamante ne euh, médecin tel amu fa médecin tel même tel amu fa technicien supérieur bi fa ne moom mooy assurer tel et tel et tel comme ça bu ëllëgee problème yi ñuy am jamono yi yëpp donc duñu ko am parce que loi bi dina couvrir paramédicaux yi dina leen permettre ñu exercer en toute quiétude parce que man li may ragal mooy ñu dem ba jamono boo xamante ne paramédicaux yi dañuy wax ne comme lii ak lii ak lii euh, du suñu responsabilité loi bi jëlu ko en compte euh, et bu ëllëgee bu amee problème euh, ñun dañ ñuy teg ay daan bu boobaa ñëpp mën nañu bank seeni loxo toog sénégalais yi ñoo ciy sonn malades yi ñoo ciy sonn mhm. donc loolu nekk na euh, disposition yoo xamante ne ñu ngi koy ñaan ministère de la santé mhm. parce que ministère de la santé ñoom ñoo euh, génne woon arrêté bi mhm. donc arrêté boo xamante ne dafay wax euh, nomenclature des actes professionnels ñu mettre ko à jour mettre ko à jour permettre maintenant aux techniciens yi nga xamante ne ils travaillent un peu partout au Sénégal à ce que tey ñu mën a liggéey quiétude mm-hmm. donc euh, ci ci fànn boobu loolu laa amoon lu ma ci mm-hmm. lu ma ciy dolli mm-hmm. uh-huh.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 jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci yenn liggéeykat yi foofu euh, ca tra foofu hôpital principal li koy firndeel mooy euh, semaine bi ñu génn amaloon ngeen benn sitting bu yaato yaatu ngir sàkku état bi respecté ak yi nga xamante ne daanaka waroon na entrer en vigueur euh, ci premier trimestre bi année ci année bi ñu nekk donc Abdoulaye Thiaw dañuy tàmbale rek ci seen jafe-jafe yi ci relèvement wu prime bi ngeen di ci sàkku bëggoon xam rek euh, euh, quand on parle de relèvement de prime ak euh, sàkkuteef bi ngeen ci sàkku lan nga ci mën a wax waaw donc par rapport ak hôpital principal xam naa ne euh, d'abord dañuy jëkk d'accord bu fekkente ne dafa am loo bëggoon yokku par rapport ak nomenclature bi nga ñu doon expliquer sànq laata ñuy xuus ci loolu bien sûr je pense que mën nañu dem ci hôpital principal euh, donc xam naa ne fi may jëkkee rek mooy euh, d'abord mm, présenter euh, syndicat bi euh, muy syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal mhm. di wax ne donc euh, hôpital principal euh, d'abord c'était un hôpital de la coopération après mu évoluer nekk euh, un hôpital euh, un hôpital public à caractère spécial mm-hmm. après mu dem ci yeneen évolution nekk euh, un hôpital public militaire nekk service d'instruction du service de santé des armées mm-hmm. un hôpital d'instruction du service de santé des armées et syndicat yi je pense que depuis quatre-vingt-deux syndicat yi ñu ngi am ci hôpital bi donc di liggéey euh, ñoom liggéey bu mucc ayib par rapport donc à la stabilité sociale euh, par rapport à leur rôle de sentinelle donc euh, bu njëkk benn syndicat moo fa nekkoon mu doon CNTS mhm. après affaire yi évoluer évoluer mu am SUTSAS HPD ñu dem ba benn jamono ñu toog gis ne féewaloo bi ci biir hôpital bi entre ñaari syndicat amul njariñ mhm. euh, ñu ne dañuy boole syndicat yi def leen benn donc bi ñu demee waxtaan ci ba c'est en 2005 la ñu créé syndicat bi nga xamante ne moom la ñu tuddee syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal mu nekk union wu euh, CNTS HPD ak ST ak SUTSAS HPD donc man initialement SUTSAS bi may ñëw hôpital en 2001 SUTSAS laa nekkoon euh, mais bi ñu defee réunification bi si la dem bokk ci STC HPD donc man nekk fa depuis 2005 euh, nekk fa délégué du personnel à je pense quatre mandats e donc par la suite ma nekk secretaire général euh, syndicat bi nag comme euh, donc ni ñu waxee c'est euh, le syndicat majoritaire à l'hôpital mhm. euh, nekk syndicat boo xamante ne donc euh, ay nit yu réfléchi yu responsable ñoom ñoo ko jiite nekk syndicat boo xamante ne dafay ñëw di taxaw di saytu devenir hôpital bi di saytu condition yi nga xamante ne moom la ñu jëlee en charge maladie di xool aussi personnel bi nan la ñuy def ba améliorer seeni situation donc ci fànn yooyu la ñuy def chaque fois bu waree rek ñu réfléchir ci benn plateforme revendicative boo xam ne day ëmb lépp lépp hôpital muy muy malade muy personnel yi muy aussi devenir bi donc euh, comme ni ma ko amee euh, habitude di wax euh, am na ay médecin chef yoo xam ne bi ñu sénégaliser hôpital bi en mille ba léegi donc am na ay médecin chef yu yu jot a jaar muy le professeur Boubacar Wade yàlla na ko yàlla jéggal yërëm ko xaare ko àjjana muy le professeur jaata Bakary jaata ak le docteur Momar Sène Euh, ñoom euh, ñooy ñi nga xamante ne donc euh, jotoon nañ fi jaar le professeur Mame Thierno Dieng moom mooy l'actuel le quatrième médecin chef sénégalais bi nga xamante ne jiite na hôpital bi et à chaque fois dañ dañuy defar une plateforme revendicative déposer ko avec la direction et jël tout le temps qu'il faut ça c'est important mm-hmm. Euh, on prend vraiment tout le temps qu'il faut da ngay gis ay négociation yoo xam ne day étalé wu presque sur une année. Mm-hmm. et lii tax ñu koy def parce que ñun xam nañ ne euh, ci waxtaan ci la lu bëri mën a juddoo. Mm-hmm. et ci waxtaan ci lañ def mën a defaree lu bëri. Mm-hmm. donc duñu duñu yàkkamti duñu précipité à chaque fois dañuy def plateforme waxtaan ci ak suñu autorités yi ñu mettre leen à l'aise mettre leen à l'aise ba li nga xamante ne moom la ñuy jël comme ay disposition mu nekk ay euh, disposition yoo xamante ne dina euh, dinañ ko réaliser personnel bi dinañ ci gis seen bopp donc depuis professeur euh, wad professeur jaata docteur Momar seen donc ñooñu ñëpp plateforme yi ñu jotoon teg ak ñoom waxtaan nañ ci le temps qu'il faut jël nañ ci les résolutions qu'il faut et réaliser nañ ko de manière concrète nag ci délai yi nga xamante ne donc moom la ñu moom la ñu signé woon euh, je pense que nii nii nii nii c'est cette année seulement que la ñu am problème yi euh, la ñu am problème yi nga xamante ne donc euh, posé nañ une plateforme discute jël nañ temps bi war yépp ñu discuter ci ba signer un protocole et que protocole boobu noonu e direction bi respecté wu mu nekk loo xamante ne aussi muñ nañ ko ah muñ nañ ko parce que euh, li ñu signe woon ci protocole bi euh, ay accord la yu yu yu yu yu bëri yoo xamante ne euh, problème mu maladie yaa ngi ci problème mu personnel yi ñu ngi ci ñu waroon ko surtout par rapport ak prime d'intéressement bi ak paiement wu ay reliquats de salaire et autres mm-hmm. ñu waroon ko mettre en application depuis le mois de janvier deux mille vingt deux mm-hmm. mais donc ñu gis ne c'était pas c'était pas fait parce que donc euh, euh, étude yi def nañ ko engagement yi un direction bi jël na ko parce que dañ doon wax ne ñoom duñ jël engagement boo xam ne duñ ko mën euh, duñu def loo xam ne day day day day nasaxal hôpital bi ñoom li ñu mën mooy telle et telle proposition ñun ñu fekk leen ci bàyyi li ñu bëggoon yépp ñu dem fekk leen ci ñu ne ñu donc signé ça va entrer en vigueur en janvier deux vingt-deux ñu dem au niveau du conseil d'administration euh, loolu amul gars yi conseil d'administration bi bañ ko voté et ça ça n'a jamais existé dans cet hôpital mësul mm-hmm. am mm-hmm. euh, ñu bi ñu defee ay démarches bi ñu yëgee loolu ñu def ay démarches dem seeti suñu kilifa muy directeur hôpital bi euh, toog ak moom wax ko ñun suñu naxar par rapport à la situation parce que mënuñu concevoir euh, jël temps boobu yëpp waxtaan ba signer ay accords et que ces accords la au finish ñu ne dañ koy réaliser donc validé wuñu ko donc il nous a demandé que nañu nañu muñ patienté euh, incha allah premier trimestre dinañ ko dinañ def tout ba dugal ko mhm. ñu toog ba waxuma la premier trimestre sax mais deuxième trimestre bi passé mais gis ñu dara période boobu yëpp toog nañ di muñ biñ toogee muñ ba gis ñu dara lépp li nga xamante ne yoon mayoon nañu ko muy bind suñu autorité muy direction bi. Mm-hmm. def nañ ko biñ gisee ne amul retour de réaction ñu bind. inspection du travail def benn benn kayit bu ñuy wax notification de conflit parce que dañu lay wax ne tey su fekkee ne da nga nekk ak sa direction ngeen di ngeen ngeen am protocole d'accord protocole d'accord bi dem ba am problème li nga war a def mooy da nga ciy boole inspecteur du travail moom mu def ci wàllam donc notification de conflit bi bindoon nañ ko depuis dix mai bi ñu defee notification de conflit bi euh, inspection du travail euh, convoqué ñu ñun ak direction pour def lu ñuy wax conciliation parce que processus bi noonu la ko code du travail tëralee donc ñu convoqué ñu à deux reprises donc ñoom ñëwuñu waa inspection du travail ñaawlu loolu trop parce que nee nañ c'était la première fois ñuy gis benn direction boo xam ne dañ ko woo ci waxtaan pour trouver ay solution donc direction bi yónneewul wootewul donc ñoom ñu ñaawlu ko trop ñu defal ñu benn PV de non conciliation ñu jël PV de non conciliation bi am droit nag en ce moment def suñu préavis de grève déposer ko au niveau de la direction mais loolu dafa waroon tax bu ñu yeggee foofu ñoom direction bi ñu jóg ne ah ñii kat c'est vrai ñoom ñun ak ñoom ñoo signé woon protocole protocole bi kat sooxe ne nangam nangam ñu jóg woote waxtaan mais déposer nañ préavis bi. ba préavis bi jeex. Mm-hmm. amul benn réaction boo xamante ne donc direction bi def na ko. Mm-hmm. donc ñun il normal mhm. que tey ñu jog wane li nga xamante ne moom moo ñu naqari mhm. te bi ñuy jóg aussi jóguñu rek dug dugg ci ay grève yoo xamante ne c'est des gomme waaw ci coup de mhm. mais dañu toog waxtaan seet seetaat euh, ñu ne ah léegi kat au lieu ñu dem grève dañu def sitting dañu def sitting euh, pour yëglu bu ñu defee sitting bu ñu yëgluwee su fekkee ne li ñu yëglu ah am na solution bu boobaakat ñu teg grève fële parce que ñun hôpital principal grève bokkul suñu culture grève bokkul suñ culture xamuñu ko buñ ko defee rek c'est parce que dañ dañ ñu sës si mur c'est parce que dañ amul benn solution donc moo tax remous yooyu ngeen doon dégg am foofu la ci ci circonstances yooyu la amee euh, mënuñu ko woon éviter moo tax ñu bind këyit dañ bind kayit ah parce que ñun lépp lu ñuy def dañ koy dañ koy bind adressé à la direction ñu bind kayit ne dinañ def sitting dinañ def bu sitting bi bu dara sottiwul dinañ def grève donc moo tax le dis le mardi dix neuf passé ñu organiser woon un sitting donc woo presse bi invité leen ñu ñëw ñu wane li nga xamante ne yëpp ñun naqari na ñu ci hôpital bi muy condition yi ñu jëlee en charge euh, maladie en général parce que loolu du hôpital principal rek euh, surtout concernant urgence yi euh, muy <clears throat> problème wu ay prime ay nit yoo xamante ne dañ leen requalifié woon depuis deux mille un janvier deux mille un ñu waroon leen fay différence sociale de salaire kenn fay leen muy problème mu respect de la loi sur la bancarisation bancarisa la loi sur la bancarisation mu nekk loi boo xamante ne ça a été c'est une loi qui date de deux mille quatre mm-hmm. qui date de 2004 musuñu ci am problème musuñu ci am problème dañu daan fay normal à au sein de l'hôpital euh, avec euh, l'ACP donc dañu daan fay normal euh, ba 2000 deux mille euh, dix neuf lañ ci commencé am des difficultés avec euh, notre nouveau ACP bi mu ñëwee ne mënul respecter ñi ko jëkk ñi ko fa jiit liñ daan def de deux mille quatre deux mille dix neuf dañ ko ko nangul la ah, bi ñu négocier sottiwul dañ nangu li nga xamante ne moom la loi bi wax loi bi daf ne donc booy fay euh, xaalis boo xamante ne ça au delà du montant de référence da koy fay soit par chèque wala nga fay ko par virement mhm. donc bi ñu sësee loolu lañ nangu mais ñun li ñu gën a metti mooy ñun nangul nañ leen respecter loi bi mais ñoom nanguluñu loi bi ñu rest ñu ñu appliqué ko mhm. nii nga xamante ne personnel bi noon lañ ko noonu noonu lañ ko war a tëralee pour personnel bi mhm. parce que tey euh, su ma demandé chèque war nañ ma a jox sama xaalis par chèque ñoom seen yoon nekkul ci problème boo xam ne am naa ko au niveau de la banque problème boo xamante ne donc euh, am naa ko fii wala fële man lii mooy sama bëgg-bëgg donc hôpital bi ñoom dañ ko war a respecté mais malheureusement ñaari at a ngi ñaari at je ñu ngi daw ci ginnaaw loolu mm-hmm. donc loolu aussi dolleeku ci relèvement wu prime d'intéressement bi nga xamante ne loolu signé woon nañ ko ba pare mu nekk prime d'intéressement boo xam ne personnel bi yëpp lay maasale amul civil amul militaire nekk na loo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que ñooy liggéeyandoo ñoo bokk nekk nekkandoo ci service bi euh, donc bu ñuy fay dara donc ñun ñëpp lañ koy maase fay mhm. donc boo ci loolu mhm. mais vraiment donc euh, am na ay difficultés yu bari yoo xamante ne rencontré nañ ko ci processus bi mhm. euh, parce que dañuy jàpp ne njiit boo nekkee ci hôpital nekk njiit euh, da ngay war a yërëm sa personnel parce que yow yaay comme seen way jur da leen war a gunge bu nekkee si yenn difficulté yi da nga leen war a accompagner mais vraiment loolu gisuñu ko gisuñu ko comme ça se doit niñ ko doon dundee ak yeneen médecin chef yi yeneen médecin chef yi nga xam ne donc daf leen doon jaral ñu ne dañuy dindi seen grade teg ci table yi pour que yenn euh, proposition yi mën a jàll ñun gisuñu ko peut-être nag suñu directeur bi euh, moom nekkul produit wu hôpital principal. Mm-hmm. peut-être que moo tax euh, dundul ak personnel bi ci cursus bu yàgg mhm. xam li nga xamante ne moom la ñu jànkonteel mu am benn sensibilité ci personnel bi peut-être loolu moo tax mhm. euh, puis yenn prise de position mi difficile mhm. donc euh, mais vraiment euh, jamono yi moom donc am na ay difficulté yu bari yoo xamante ne donc ñu ngi koy ñu ngi koy jànkonteel am na lu ñu fësal à travers mouvement d'humeur bi mais am na yu bëri yoo xamante ne fës duñ ko fësal mm-hmm. euh, dañ ciy waxtaan ak ñoom mm-hmm. et fexe trouver ci ay ay solution mm-hmm. donc euh, mouvement d'humeur bi nag bi ñu ko commencé euh, communiqué nañ ci ci rajo yi le 19 def sitting le même jour am na conseil d'administration boo xamante ne amoon na conseil d'administration bi gis ampleuru ñaxtu personnel bi ñoom ñu jël ay ay disposition fort mooy seen ordre du jour ñu boole ci la préoccupation des personnels mm-hmm. ba pare mettre en place benn benn commission ad hoc commission ad boo xamante ne donc euh, ay personnel technique la euh, ak euh, ay membres conseil d'administration yi pour que ñu génnee leen proposition de sortie de crise donc si commission boobu bi ñu réunir am na loo xamante ne ñoom jot nañ ko tënk seen biir la ne et ci waxtaan bi ñu waxtaan ñu ñaan ñu nañu teggi suñu tànk euh, ci grave bi euh, ñun aussi pour joindre l'acte à la parole wan ñit ñi ne ñun solution kese kese kese la ñuy wut ñu jox solo bu bëri ñu jox crédit bu bëri am cër bu bëri boo xam ne jox nañ ko conseil d'administration bi ñu ne gars yi xoolal dañuy arrêté grève bi dañuy dem liggéeyi mm-hmm. moo tax grève bi continuer wul mm-hmm. euh, dès que commission boobu réunir euh, ñoom ñu tënk ay propositions yoo xam ne war nañ ko yóbbu conseil d'administration pour mu valider ko euh, ñu ñaan ñu ñu ne ñu tegg leen seen tànk mm-hmm. ñu ne ñu tegg suñu tànk delluwaat ci liggéey bi le temps nag ñuy xaar ñuy xaar affaire bi nekk lu concret mu nekk lu concret ba nga xamante ne personnel bu ne di nga ci di nga ci mën a gis sa bopp parce que comme ni ma ko waxee sànq ci processus bi déposé nañ préavis préavis bi jeex na donc fii ba mai déwén mën nañ déclencher ay ay ay mot d'ordre mm. euh, mën nañ déclencher mot d'ordre mm-hmm. mais fi mu toll nii pour le moment on nous avons retourné nous sommes retournés au travail mhm. donc ku nekk yaa ngi ci poste bi nga xamante ne yaa ngi ko yaa ngi ko doon occupé euh, di toppatoo parce que o fait ñun loolu moom mooy loolu mooy li ñu bëgg loolu mooy suñu suñu mission aussi quoi mhm. wax nga ko pour le moment reprendre ngeen service mais tekk tekkaaral bi ngeen nemmeeku au niveau de la direction xam nañ ne direction bi certainement moom moo euh, war a gérer peut-être seen revendication yi mais ndax euh, si silence des autorités bu ma nee silence des autorités maanaam euh, dépendre ngeen ci ministère de de la santé ak action sociale euh, euh, tekk tekkaaral boobu aussi ci suñu autorités yi naka nga ko mën a jàngatee ndax je suppose que ñëw leen rek def sitting bind nga fi ngeen war a bind jaar ngeen yoon bu ngeen war a jaar boobu ba léegi benn réaction amul naka nga ko jàngatee. waaw donc dama ne loolu gënul parce que boo amee njaboot ci biir njaboot yi nga gis ne am na am na problème. am na ay difficultés yi ci am je pense que war nga euh, ñoom bu ñu defee benn jéego ñëw ci yow euh, yow war nga def ay jéego pour que situation bi ñu mën ko régler de manière définitive mm-hmm. parce que ñun comme ni ma la waxee rek de vraiment on est un syndicat très responsable mm-hmm. et ñi nekk syndicat bi aussi c'est des gens responsables dañu nekk ñenn ñoo xamante ne ils ne sont pas là pour seen bopp ñoom mm-hmm. mais ils sont là pour le personnel li may wax sama collègue yi mën nañ ko mën nañ mën nañ ci mën nañ ko seede euh, ñi fi nekk ay secrétaire générau peut-être bu la neexoon nga ne damay euh, profiter sama sama sama sama posture euh, pour ñu recruter sama doom sama jabar samay lii samay lii mais pour garder rek suñu suñu suñu ton pour garder suñu autonomie suñu liberté de parole donc am na yu bari yoo xamante ne dañ koy jël teg nale ñu taxaw taxawaayu taxawaayu responsable taxawaayu ñoo xamante ne personnel bi ak devenir hôpital bi kese moom moo leen ñor. Mm-hmm. bi ñu tolloo ci yenn situation yi effectivement bind nañ ministère des forces armées bind nañ ko correspondance moom benn instant euh, adressé woon na beneen correspondance au niveau de la direction waa direction tontu leen mais après amuñu ci benn suite amul suivi après amul benn suivi correspondance envoyé nañ à la direction correspondance direction delloo leen delloo leen une réponse mais suivi bi nga xamante ne moom lañ ci doon xaar pour que solution mën a am euh, ci condition yi personnel bi di dund donc amuñu ko ci mm-hmm. donc chaque fois may wax ne li nga xamante ne waroon nañ ko def comme ay démarches vers notre hiérarchie parce que hiérarchie bi c'est la direction c'est aussi le ministre des ministère des forces armées parce que ministère des forces armées mooy ministère bi nga xamante ne mooy suñu ministère de tutelle donc def nañ ko euh, bi ñu demee ba loolu sës donc ñi nga xamante ne mooy les démarches administratives euh, mooy du côté de l'inspection du travail nga xamante ne ñoom ñoo fi taxawal respect wu droit wu personnel contractuel donc loolu aussi def nañ ko mhm. donc bi ñu defee bi ñu defee daanaka euh, processus boobu yépp si la ñuy soog a ñëw nag ne ah xaaral wax nañ ba sonn kenn dégguñu xaaral ñu gën a biral suñu baat peut-être bu ñu gënee biral suñu baat ay ay nit dinañ wala ay autorité dinañ jóg dugal ci seen loxo pour que problème bi problème bi sotti mhm. Euh, kon guddi yu ñu toll mën nañ ne jàpp ne euh, da ngeen di toog rek peut-être en attendant que situation bi dénu di di dénoué parce que wax nga ko reprendre ngeen service mais fii ba mais euh, année prochaine am ngeen possibilité reprendre seen mouvement d'humeur moo xam grève moo xam sitting waaw donc euh, effectivement pour le moment dañuy toog di déglu direction bi ak euh, euh, conseil d'administration bi mm-hmm. euh, pour pour vraiment mettre leen à l'aise mm-hmm. mettre leen à l'aise liggéey bi nga xamante ne war nañ ko liggéey pour indil indil ñu solution par rapport à cette crise là ñu liggéey ko en toute quiétude Euh, ñu jàllale ko mu dem au niveau du conseil conseil d'administration ñu valider ko euh, après ku nekk dem continuer say activité euh, paix sociale bi si hôpital bi retrouver wu personnel bi gën a motiver wu à s'engager donc pour le travail à s'engager pour Euh, la gestion des malades et aussi donc le développement euh, développement de la structure mooy développement wu hôpital bi donc euh, loolu moo tax ñu ne nañu teggee ni suñu tànk parce que nit aussi booy jëflanteeg euh, organ wala autorité euh, mu def ay jéego yow confiance bi nga xamante ne moo war cër bi nga xam ne moo war da koy jox mettre ko à l'aise ba gis leneen mais am nañ yaakaar vraiment am nañ yaakaar bu wér ne euh, situation bii nii jéego yiñ ci jël mhm. dina indi solution mhm. loolu am nañ ci yaakaar bu wér mhm. am nañ yaakaar bu wér aussi ne donc mouvement yi nga xamante ne donc moom lañ doon def euh, pour que euh, ñu rétablir situation yi donc mouvement yooyu am nañu yaakaar ne donc duñ ci delluwaat et li may wax rek mooy euh, ñun on des sentinelles on des sentinelles parce que bu ñu nekkee ci bërëb Euh, muy entreprise muy groupe muy feneen euh, bu fekkee ne kii damay ñëw rek ne ah fii kenn du wax damay nekk di def loo xamante ne lii baax na lii baaxul mais duma ci xam dara mais ñun nag dañ nekk ay sentinelle ba nga xamante ne ci hôpital bi ñu ne muy hôpital principal lépp loo xam ne gis nañ ne lu baax la dinañ la wax ne la lu baax la lépp loo xam ne gis nañ ne donc baaxul pour hôpital bi baaxul pour personnel baaxul pour malade yi dinañ la ko wax. Mhm. parce que ñun syndicat yi ñun ñoo bootoo loolu. am nañ ay yeneen collègues yoo xamante ne peut-être seen statut ci hôpital bi même bu ñu gisee dara lu dul noonu mënuñu ko wax seen statut la mhm. mais ñun nag ñooy sentinelle yi. Mhm. ñun ñooy ñi nga xamante ne ñooy taxaw taxawaayu. ku def lu baax ñu jàppale la ci boo defee loo xamante ne gis nañ ne safaan la yóbbul hôpital bi kanam day yàq hôpital bi ñu taxaw en toute responsabilité wax ko boo ko dindee tant boo ko dindiwul ñu fexe mu yegg fa nga xamante ne donc foofu la euh, foofu lañ koy régler parce que hôpital bi aussi c'est un hôpital qui est centenaire mm-hmm. euh, hôpital boo xamante ne donc euh, président de la République am na ci ay ambition ñun partenaire sociaux yi du ñu seetaan ñu seetaan hôpital bi donc ñu koy jël di ko yóbbu foo xamante ne donc gënul pour euh, pour devenir u sénégalais yi. Mhm. Euh, ñu jàpp ne rek laata ngeen di yegg foofu di ngeen am satisfaction euh, par rapport ak li ngeen di sàkku mu bokk ci relèvement wu ak amélioration wu prix en prise en charge médicale bi bokkoon tamit ci lépp lu ngeen di revendiquer mooy ñu xoolaat seen prime d'intéressement yi nga xamante ne jàpp ngeen ne structure yu bari ça tourne autour de vingt à vingt cinq vingt cinq pour alors que yéen ci seen wàll wi yéen a ngi euh, laal lu tolloog sept euh, pour cent maximum jàpp ne fii ak fii ak ab rek xëj na euh, yooyu les revendications di ngeen ci gis ab satisfaction. waaw vraiment loolu lañu loolu lañu jàpp parce que ñu bëri bi ñu bi ñu déggee ñu yëkkati suñ kàddu. dañu jaaxle euh, parce que structure bu mel ni hôpital principal ak njariñ bi mu am euh, seen personnel dévoument bi ñu am euh, discipline bi ñu am rigueur bi ñu am ñu koy liggéey suba ngoon guddi bëccëg Euh, ñu ne <clears throat> donc en terme de de de motivation boo demee ci yeneen structures yi euh, ñooñu lañ ñoo gën a reconsidérer ñoo gën a considérer euh, personnel yi ci wàllu motivation di dem jusqu'à hauteur de vingt à vingt cinq pour cent des recettes propres alors que ñun principal on était autour de sept pour cent loolu xaw na choqué ñu bëri xaw na choqué ñu bëri mais comme niñ ko waxee rek ñun naam naam neewuñu fay leen ñu vingt cinq pour cent wala vingt pour cent comme ni ñuy euh, fay yeneen structures yi mais dañ demander à que nañu nañ ko améliorer nañ ko gën a gën a gën a ñoŋal e ci demande boobu ñu def am na montant boo xamante ne ñun demandé woon nañ ko sax mu ëpp li nga xam ne moom la euh, médecin chef euh, proposé mais bi ñu demee ba gis ne donc moom foofu la wax ne foofu la mën a yem donc euh, ñun ñu jàpp ne donc dañ koy fekk si ci proposition pour que li ñuy signé mu nekk loo xam ne dina réalisable am nañ yaakaar ne am nañ yaakaar comme ni ma ko waxee ni yow aussi nga wax ko ne donc disposition yooyu noonu dinañ ko respecté mm-hmm. parce que boo xoolee léegi maa ngi lay wax ne euh, euh, recette propre recette propre dafa nekk loo xam ne personnel bi ñoo ko liggéey. subvention yi bokk ci dons yi bokk ci yeneen kii bokk ci noono mais recette propre mooy li nga xam ne personnel bi suba ak ngoon guddeeg bëccëg moom la ñuy liggéey mooy li nga xam ne moom la moom la personnel di produire ci loolu la ñuy jël une partie donc fay ci prime yi donc normalement vraiment euh, personnel yooyu koy liggéey am nañ cër boo xam ne war nañ leen ko mën a jox ba nga xamante ne donc tey bu leen fayee prime d'intéressement bi euh, que ça soit personnel civil que ça soit militaire euh, buñ ko fayee ko dinañ ne ah ñun kat nañ trop mais en retour li nga xamante ne donc am nañ ko comme euh, comme prime comme avantage jar na ko d'accord sant ko gërëm ko moom Abdoulaye Thiaw mu mel ni li ñu cërale woon ci waxtu bi nag yegg nañ ca Abdoulaye waaw donc di jaajëfal euh, ñëpp rek euh, di profiter ci occasion bi aussi euh, di remercier waa fédération des syndicats de la santé uh-huh. ñi nga xamante ne donc c'est une unité de syndicats de la santé boo xam ne taxawaay bi ñuy taxawu personnel bi amul benn je te dis amul benn syndicat boo xam ne mu ngi koy taxawal personnel bi e vraiment donc euh, di demander à que personnel de santé yi nekk euh, F2S ñu gën a taxaw gën a jàppoo gën a dëgëral seen seen engagement mm-hmm. ñeneen ñi aussi ñu ngi leen di woo parce que de plus en plus euh, chaque mois presque ñu nekk situation boo xamante ne ay syndicat décidé nañ ñëw donc ànd ci F2S bi donc vraiment la porte elle est grandement ouverte di wax ne ñin ñi nekk ci dans le cadre de la santé nekk ci ay syndicat donc ñëw leen ñu ànd euh, nekk benn groupe bu dëgër boo xamante ne bépp revendication boo xam ne ñu ngi koy yëkkati dans le cadre de la santé ñu mën ko ñu mën ko réaliser mhm. di remercier aussi euh, suñu responsable euh, nationaux yi euh, muy Elimane Diouf SG Elimane Diouf bu CSA di remercier SG Mody Guiro bu CNTS di remercier SG Cheikh Diop bu CNTS FC di remercier Ibrahima Sarr bu CDSL nga xamante ne ñoom aussi boot nañ boot nañ ñu téye nañ ñu ñu ngi ñuy accompagner donc ça bu ñu tolloo fenn bu ñu jaaxlewee bu ñu gëstoo dem ci ñoom donc li nga xamante ne nekk na euh, ay démarche wala ay post posture yu ñu war a jël dinañ ko jël pour qu'on ñu dépasser le cap mm-hmm. di remercier aussi euh, samay camarades samay collègues euh, de l'hôpital euh, principal euh, donc euh, ñi nga xamante ne chaque fois buñ waree taxaw pour ëllëgu hôpital bi bu waree taxaw pour malades yi ni ñu leen di gérer donc euh, euh, ak personnel bi seen situation ñoom ñu ñëw taxaw ànd ak les délégués du personnel euh, yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au sein donc de l'hôpital ñu ànd taxaw ci nag taxaw bu mucc ay pour que ñu dépasser pour que ñu am ay solution par rapport au problème yi nga xam ne moom la ñuy poser hôpital principal di profiter aussi di wax yeneen syndicat yi parce que hôpital principal du benn syndicat rek mm-hmm. donc ñun la euh, waa SCC nga xamante ne donc ñoo juddoo comme ni mu la ko waxee ci union wu SUTSAS ak CNTS mm-hmm. mais dañ demoon ba jëmmi jamono ay nit euh, berwaat dekkalaat ñaari ñaari syndicat yooyu donc euh, di leen wax ne dynamique unitaire bi dafa nekk loo xamante ne hôpital bi personnel bi dañ ko soxla ba léegi dañ ko soxla ba léegi jéego yi nga xamante ne ñun waa SCC ñu ngi koy def jëmale ci ñoom euh, ñu ngi leen di demander à ce que donc jéego yooyu noonu ñoom ñu gën ko jox euh, fula gën ko jox fayda te ñu xam ne euh, ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci syndicat yi du suñuy personne moo moo am solo mais personnelu hôpital principal moom moo am solo tey ñun ñi ku ci nekk bu fekkee ne perso situation personnelle bi su fekkee intéret personnel bi taxaw na te ñun ñii nga xam ne ñooy jiite dafa nekk loo xamante ne ñun bugguñu ci taxaw dañu war jël sànni ñu fële man nag en premier je man en premier man Abdoulaye Thiaw euh, suñu gisee ne dama taxaw taxaw boo xamante ne donc du intéret personnel bi alors que ñeneen taxaw pour intérêt personnel bi nañ ma jël sànni ma fële te jël ñoo xamante ne intérêt personnel bi ñoo moo moo tax ñu jog ñu teg leen ñu ànd liggéey ensemble Euh, poser ay revend les revendications qu'il faut pour le personnel pour que personnel bi en général ñu mën a dem kanam pour que hôpital bi aussi donc bonne gestion bi nga xamante ne moo fa war a ne mm-hmm. ñu taxaw ci jouer ci suñu rôle sentinelle ba nga xamante ne bonne gestion boobu noonu donc kenn du ko wàcc mm-hmm. kenn du ko wàcc ñu gérer hôpital bi hôpital bi ñu teg ko ci ay raay ba nga xamante ne foofu lañ bëgg mu jëm mu yegg fa mm-hmm. donc loolu laa amoon en grosso modo loo xamante ne moom lay eh, tëjee mm-hmm. incha allah euh, sant ko gërëm ko moom Abdoulaye caw fàttali ni Abdoulaye caw euh, moo nekkoon suñu invité suñu émission bi di SOS santé Abdoulaye Thiaw nag nekk na technicien supérieur en anesthésie réanimation waaye général bu syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou ba Fall moo nekkoon si micro bi Bachir Cissé nekk ci xarele bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité